wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin laqin lisaani wahlulan minhu al-uqad waj'alhu shakiran wa zakiran abad wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa xalbi arsida mbokki jullit yi mbokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen baalu àq te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhaanahu wa mu boole ñu jéggal ñu fas yéene dikkaar rek euh, comme ni ñu ko baaxoo defe ci ay bu jot di ànd ak yéen ci téereb sëriñ bi radiallahu anhu bi mu tudde Nahju Qadaa'il Haaj te lépp lambo ay teggiin waaye lépp lambo jëflante bu rafet boo xam ne nit ki war na ko xam di ko jëflante ak ay naataangoom waaye di ko jëflante ak ay nawleem waaye di ko jëflante ak ñi ko féete mag ak ñi nga xam ne ñoom la féete mag kon ci loolu ci la ñuy continuer rek uh, ba tey ne ko ci loolu ci la ñuy continuer rek ba tey incha allah ci euh, bind bi weesu ñi ngi taxawoon ci fi nga xam ne fi la sëñ bi doon waxe ne euh, ci am nooflaay ak bëgg loxoy kese kenn du ci am lala la gënal euh, waaye soo bëggee am la la gënal da ngay sonn waaye nga nungoo liggéey loolu mooy tax nit ki di am aw yiw waaye loolu mooy tax nit ki di am xéewal loolu mooy tax nit ki oomal waaye koo xam ne nunguuta liggéey nunguuta uh, sonn nunguuta ñaq kooku bu ne dafa bëgg alal wala dafa bëgg uh, teraanga tamit uh, du ma ne duf ko am waaye mën na koo jafe lool ndax la koy maye daf koo defut muy continuer ba tey mu ne waalam xamal bi annal majda naka tedd nga laa yunaalu deefu ko am ila bi qadril kaddi ndara ci ab coona fi ma ca la nga xam ne xaalu waxeef na ko nee na yow mi nga xam ne de danga bëgg tedd nga yow mi nga xam ne danga bëgg euh, tawféex yow mi nga xam ne danga bëgg euh, alal wala loo man di sàkku ci àdduna na nga xam ne mënee suta am lenn lu nit ki di sàkku ci àdduna euh, lu feek ak coono jiitu loola ba pare kon lépp loo xam ne moom ngay sàkku ci àdduna na nga xam ne bala nga ko am ay coona mën na la cee fekk waaye coona yooye boo jànkoonte ak moom suñu borom mën naa dogal li nga xam ne moom ngay sàkku nga mën koo am kon euh, ab coona ginnaaw coona bànneex boobu olof di wax kon mënul ñàkk nit ki su fekkee ne dafa bëgg tedd nga mu nungoo sonn ngir mu mën a jot ca tedd nga joojee mu bëgg ni nga xam ne nit ki su fekkoon dafa bëgg alal wala lu mu di bëgg la koy may mooy ab coona ndax faaw mu liggéey doog cee jot soo bëggee ab xam-xam la la koy may mooy coona ndax fawu nga sonn mu ngoo jàng euh, doog a mën a egg ci euh, xam-xam fa nga bëgg a egg mu ne wax xaytu raama fu mu fi sàkkoo min ka ci yow justiqaaxin boroomuk yayoo fab zulhu nang ko yullil maa la nga xam ne raama sàkku na ko bila shiqaaqi ci lu dul ŋaayoo wala lu dul mbugal nee na saa boo xamee ne nit ku yayoo day ñëw na ci yow sàkku ci yow maanaam koo xam ne suñu borom dafa def loxoom jotul ginnaawam mu ñàkk euh, te amul lu mu jëfandikoo mu ñëw ci yow di la ñaan wala mu lay saraxu euh, wala mu lay lepp yooyu yëpp bu ci am nee na na nga ko maanaam na nga ko jox la xam ne moom lay sàkku te bul ko ca mere euh, bul ko ca mbugal waaye bul ko wax lenn lu ko naqari ndax lan ndax yàlla mi nga xam ne moo la ko moo seet ba jox la ko mënoon na la koo xañ jox ko ko moom kon bu fekkee ne ku yeyoo li nga yor dafa ñëw ci yow sàkku si ko ci yow te nga mën ko koo jox na ko ko jox te bul ko ci xool bëtub xeebeel bul ko ci mbugal euh, bul ko ci ñàkke kersa waaye bul ci xuloo ak moom bul ci ŋaayoo ak moom moo tax ne wala takun bul nekk aw du mukk ba xiilan di aji nay del fokaan yi ca poñet ma fi haasihi dunya ci jiile àdduna fa tox saa kon nga làq fil xiyaami ëllëg yowmal xiyaam nee bul nekk mukk di aji nay ci poñetim àdduna mi nee na xam ne mooy euh, alal àdduna ji bul ci nay mukk moo xam Euh, xaalis la boo war a joxe wala lekk goo war a mën a sarax nit yooyu yëpp nee na bul ci nay nee na bul nekk ku nay mukk nee na ndax su fekkee ne nayoo fii ci àdduna de bu ëllëgee yowmal xiyaam di nga gis ñàkk nay ak def lu baax ni ame solo kon poñetam àdduna mii nga xam ne mooy alal ak yi nga xam ne moo ci aju euh, yooyu yëpp nee na bul ci nay soo amee koo mën a dimbali na ko dimbali rek te yàlla tax waaye bul jël alal ji di ko rënk ko denc te ma am ñoo ci mën a dimbali loolu su fekkee nit ki daf koo def ëllëg lam koy jural du du baax moo tax mu ne fa inna zal buxli naka jiila nay fa inna zal buxli naka jiila maanaam waa ji nga xam ne dafa yore jikkooy nay baidun aji sori la is yaaynu fom fi ràññikoo minallahi ci suñu borom bi wa taala wa min jamii xalqihi ak ci mboole mbindee fami nee na boroomu nay day saa bu ñu xamee ne kii de dafa nay ba ñëpp xam ko kooku de day sori suñu boroom lool waaye day sori mbindee fi lool ndax li tax muy sori suñu boroom mooy day yor loo xam ne suñu boroom da ko jox ngir mu dimbali ci nit ñi mu téye ko jaamuwu ci yàlla dimbaliwu ci nit ñi waaye li tax muy sori nit ñi mooy nit ñi dinañ soxla ci li nga xam ne moom la yor waaye du leen ko du leen ci dimbali tey du leen ci nungoo jox su ko defee la xam ne moom la def muy tee alal joojee loolu moo koy yóbbe euh, ci mu sori suñ boroom waaye loolu moo koy yóbbee ci mu sori nit ñi kon nay mooy tax nit ki euh, du am ab cër fa suñ boroom waaye du am ab cër ci mbindeef yi ndax su fekkee ne danga ngaa nay sa alal doo ko génn di ko jox nit ñi waaye doo ko def ci yoon yàlla Euh, te yooyu yëpp day tax nit ki euh, du jege suñu boroom waaye du jege euh, mbindeef yi daf leen di sori bu baax a baax a baax kon am alal téye ko jëfoo ci lu loo xam ne moom la suñu boroom digle maanaam defoo ci lu neex suñu boroom wala dimbaliwoo ci jaam yàlla yi ngir téye ko rek di denc di wàññi alal ji loolu amul benn njariñ mbokk yi kon li nga xam ne moo am solo mooy nit ki su fekkee ne suñu borom xéewale na ko muy boroom alal na ci def ci yoonu yàlla waaye na na ciy fexe di ci dimbali jaam yàlla yi ndax loolu kat mooy li nga xam ne moo ko mën a jariñ waaye téye alal ji di ko wàññ ak denc loolu du loo xam ne day jariñ nit ki moo tax mu ne wa saaxibul buxli boroomu nay yuqaadu def na ko wommat ila niiraani jëme ca sawara matruudan di aji dàqu maanaam di kun dàq anil jinaani walif ajana nee na ki nga xam ne dafa nay dee bañ xam ne kii de dafa nay dee kooku ëllëg yowmal xiyaam dinañ ko wommat jëme ko sawara ngir nay gi nga xam ne moom la nayoon loolu moo ko yóbbe loolu euh, ndax nit ki su nayee àqi suñu boroom ji nga xam ne moo am ci alalam maanaam nit ki mën naa nay ba yóbbee ko Euh, mu dem ba am nisaab maanaam kem moo xam ne dañuy wax ne ku ko am génne azaka ak nay yóbbe mu bañ a jëfe ndigalal suñ borom loolu ba mooy ko nit ki nay mën na koo yóbbee ba suñ borom ne ko deel dimbali ñii ak ñii euh, nay yóbbe ko mu bañ leen a dimbali te loolu lépp ay bàkkaar lay jural nit ki yoo xam ne ëllëg yowmal xiyaam mën naa tax suñ borom dàq ko ci yërmandeem Euh, dàq ko ci li nga xam ne mooy àjjana waaye mën naa tax suñ borom digle ñu wom mat ko jëme sawara waliyaasu billah kon nay du jikko joo xam ne day euh, defaral doomu aadama bi waaye jikko la xam ne day yàqal euh, doomu aadama bi kon ko koo xam ne mën nga ko moytandiku nga moytandiku ko bu baax mbokk yi ndax jikko la joo xam ne ay ñaawteef ak mbon rek lay yóbbee borom bi moom lay yóbbee boromam. waat suhu ab safaanam nag moom nay asaxiyu mooy tabe fii maa ca la nga xam ne xiilaa waxees na ko fa kun na nga nekk saxiyan di aji tabe laa takun bul nekk ba xiilan di aji nay nee na e, nay de mooy tabe mm, safaanub nay mooy tabe kon yow sama mbokk na nga fexey ba tabe waaye bul nekk mukk di aji nay ndax loolu nga xam ne moom lañ wax ci naykat du lu baax te fa mu nit ki du baax kon safaan ba nga xam ne mooy tabe fexe yàlla yow bi sama mbokk nga jikko woo ko di ko jëfandikoo ngir ne loolu ci nga mën a amee euh, ngërëmal suñu borom waaye ci nga mën a amee nit ñi sopp la ci nga mën a amee nit ñi bëgg la ci nga mën a amee nit ñi euh, wormaal la ci nga mën a amee nit ñi respecté la kon euh, nay mi ngi noonu tabe mi ngi noonu nañu fexey bu baax di moytandiku jikko jee nga xam ne mooy nay waaye nañuy fexey fu ñu toll di tabe tabelu ngir bu tabe tabelu jooju nga xam ne moom la def ci la ñuy jaare euh, ba am li nga xam ne moo di ak tab te ak tab ku ko am euh, man nga cee jaare di jëf ci yoonu yàlla loo xam ne da ngay dem ba mu euh, jural la ay tuyaaba yu baree bari waaye man nga cee jaare di jëf ci yàlla yi ba mu jural la ay tuyaaba yu baree baree baree bari moo tax mu ne yaani li mu jublu annahu naka moom ya muru ya'muruka dana la digal bi anta tazuura ci ngay ziyaare ji al ulamaa borom xam-xam ya wa saalihin ak way baax ña ñu baax ñi nga xam ne euh, dañuy euh, seen lépp ci suñ borom lañ ko jëmale dañuy jaamu yàlla di topp suñ borom di dimbali ñi nga xam ne ñooy euh, ñi nga xam ne ñoo ñàkk ak ñi aajewoo watax dimahum te nga leen di dim te leen di liggéeyal watata baraka te ngay barkeelu minhum ci ñoom watas aluhum te nga leen te nga leen di ñaan wala te nga leen di laaj a addu'a ak ñaan maanaam nga sàkku ci ñoom ak ñaan ndax ne na fa inna ijlaala al aalimi min ijlaali allahi taala ndax ne na li nga xam ne mooy màggal boroom xam-xam mooy màggal suñu borom bi subhanahu wa taala fa inna ijlaal al aalimi min ijlaalillahi taala màggal boroom xam-xam mooy màggal jëmmi suñu borom bi subhaanahu uh, wa taala kon ne na dalay diggal nga ci bëy di weesu dala ci diggal ngay uh, topp ki nga xam ne mooy suñu boroom waaye ngay ziyaare ji boroom xam-xam yi ak waaye baax ñi nit ñi baax ñi nga leen di ziyaare ji waaye nga leen di liggéeyal di barkeel ci ñoom di di sàkku ci ñoom ñaan ndax wormaal borom xam-xam ak màggal ko ak teg ko place euh, loolu mooy wormaal suñu borom bi subhaanahu wa waaye mooy màggal suñu borom bi subhaanahu wa taala waaye borom xam-xam bañ la ñuy waxal nag mooy borom xam-xam bi nga xam ne dafa xam li suñ borom wax ba pare mu koy jëfe kooku la ñu wax mu ne wa annaka naka yow isa saa xabta saa boo fi àndaalee man ka nga xam ne huwa moom dana nekk akbaru di gën a mage min ci yow fii safarin ci ab tukki aw xayrihi wala ci leneen lu dut ab tukki fa aasirhu nang ko ëfal bil firaashi calal lal ba wajlis te nga toog anta yow alal ardi ca suuf ne na saa boo xamee ne àndaale nga koo xam ne moo la mag day moo la féete eh, ay moo ëpp ay at eh, ci ab tukki wala leneen lu man di doon loo xam ne du ab tukki ne Euh, bu ngeen waree toog ci ab lal na nga ko ëffal lal ba maanaam na nga na nga ko bàyyee lal ba euh, te nga ci suuf waaye bul bokk ak moom kaw lal ba mukk wala tuddaa jenxu bul tëddaale ak moom illa li daruratin ndare lor ne na it bul tëddaale ak moom ci kaw lal maanaam saa boo demee ba tëdd jot ngeen war a tëdd yéen bul tëdd moom mukk ca kawlal ba donte ne woona la ne la kaay ñu tëdd ci kawlal bi wala mu woola ne la kaañ bokk ci kawlal bi toog bul nungoo toogandoo moom ca kawlal ba bul nungoo tëddandoo ak moom ca kawlal ba waaye yow nala suuf si gënal euh, foo toll na suuf si gënal nangay ngay fexey di toroxlu ci kanamam di ko euh, féete suuf rek euh, lépp loo xam ne mooy worma nga séddee ko ko te bañ a bokk moom ci euh, te bañ koo euh, gam-gamle ak moom wala ngay méngale méngal méng sa bopp ak moom ci jenn daraja lu dul ne lor dafa am nag su fekkee ne lor dafa am nag muy barab boo xam ne moom mënoo ñàkk a toogandoo ak moom ci kaw bu boobaa loolu lor na lor la def na la ko jéggal bu fekkee ne barab la boo xam ne mënoo ñàkk a tëddandoo ak moom ci kaw lal bi tamit bu boobaa loola Euh, dara lañ koy tudde euh, danañ la ko jéggal ngir nga man koo bokk ak moom wa isa xadima ndéem dikk na ilaykuma ci ña yéen ñaar sharabun ak naan aw taamun wala aw ñam fala tasbiqhu bu ko jiitu ilayhi jëm ca naan ga wala lekk ga abadan ba faw nena saa boo xamee ne indil nañ leenug lekk de wala ñu indil leenug naan bul ko jiitu mukk jëkk koo lekk wala nga jëkk koo naan déedéet waaye nang ko nang ko xaar mu jiitu la bu lekkee ba pare wala bu naanee ba pare su ko defee nga euh, doog a naan wala nga doog a lek su fekkee ne da ngeen a bokk bool bi bul ko jiitu mukk ca ndawal ga nga xam ne moo tege ci kaw bool bi waaye na nga xaar mu jiitu la ca wantazir te nga xaar maa nga xam ne ya muruka dana la ko digal fii ca moom wa asirhu ten koy ëffal bil di ca la gën a baax mi mina taami ca ñam wa ne na kon li fi ne daal mooy su ngeen sukkee bokk ndab li na nga xaar ndigalam saa boo xamee ne jox na la ndigalul dem ca li nga xam ne moo nekk ca kaw bool ba ca digg bool ba bu boobaa nga am ndigalul man caa dem waaye feeg joxula ca ndigal ne na na nga téye sa téye sa loxo di lekk ci sa kanam comme na nga xam ne noonu la ko yonente bi sallallahu alayhi Euh, digale woon xale boobe ci ab xadis ne ko yaa xulaamu sàmmillaaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika yow xale bi booy lekk na nga tudd yàlla te lekk lekke sa loxom di joor waaye lekke sa loxom càmmoñ waaye lekk lekk sa loxom di joor waaye na nga lekk li nga xam ne moo nekk sa kanam tuddal yàlla lekk sa di joor lekk li nga xam ne moo nekk sa kanam kon soo sukkee ak mag euh, ci xadis boobu war nga koy bàyyi xel bu baax a baax di ko jëfandikoo su la joxee ndigal nga dem ca euh, digg ndab la waaye bul dem di dagg di tegal sa bopp rek waaye na nga lépp lu gën a baax ci ñam wa rek nga wormaal ko di ko dagg di ko tegal wax dimhu nanga ko liggéeyal fii kulli ma ca lépp la nga xam ne yaxtaaju dana aajowoo ilayhi jëm ca moom nee it na koy liggéeyal ci lépp loo xam ne daf koo aajowoo maanaam lépp luy aajoom taal ta nga xam ko nanga nga nga dox ca nga fexe liggéeyal ko ko defal ko ko ba mu mel na nga xam ne noonu la ko noonu la ko bëggee wa annaka naka yow isa saaxabta ndeem àndaale nga xaw man aw nit fii safarin ci ab tukki fakun na nga nekk xaadimahum seen liggéeykat seen bindaan waraaya te nga sàmm rawaxilahum seeni warwaay wa xaadina te nga bokk wala nga yore nga yenu amtiatahum seeni euh, bagage nee na saa boo xamee ne ànd nga fekk aw nit day moo xam aw mag la moo xam gone yu féete ndaw la euh, nga ànd ak ñoom di tukki nee na na nga doon seen bindaan na nga doon seen ab soldaar euh, di garde seeni waruwaay waaye di fexey di yore seeni bagage Euh, ndax bu fekkee ne mag la moo la féete mag mën naa ñàkk doole ju mu mën a yore ay bagaasam wala mu ñàkk kattan gu mu mën a sàmmee li nga xam ne mooy waruwaayam euh, su ko defee bu boobaa na ko sàmmal ay waruwaayam te sàmmal ko li nga xam ne mooy ay bagaasam yoral ko ko aaral ko ko ba mu egg fa mu jëm bu fekkee ne xale la boo xam ne itam moo la féete ndaw nga xam ne yaa ko ëpp kattan euh, te li mu yor mënu ci dara nga dimbali ko te yàlla rek tax kon loolu it bokk na ci ay teggin kon nee na saa boo àndeek aw nit daal nanga nga doon seenu liggéeykat na nga doon seen bindaan euh, sàmmal leen seeni baga sàmmal leen seeni waruwaay wala tuusir bul gënal addaata loxoy kese euh, addaata loxoy kese war raaxata akum nooflaay nee na bul gënal mukk itam loxoy kese akum noflay maanaam foo toll di tàllal loxo doo liggéeyi mukk bëgg a def am nooflaay muy sa mbir doo nungoo liggéey nunguwoo def dara te bëgg di am nee bul def loolu mukk bul gënal ñaar yooyu mukk abadan ba faw ndax fa innahuma naka ñoom ñaar de laa yaatiyaani du dikke bi xayrin ci aw yiw euh, kon nee ñaar yooyu mu la wax de du ñu dikke mukk aw yiw nit ki nga xam ne moo leen gënal maanaam am nooflaay ak loxoy kese Euh, bañ a nangoo liggéey ñaar yooyu du luy jural nit ki ndam waaye du luy jural nit ki aw yiw te it wala yabluxu du jot almajdu du nga illa bil kaddi lu dut ci ab coona kama xiila niki ñu ko waxe te it na nga xam ne euh, nit ki de mënta jot tedd wala mu jot ab euh, teraanga wala mu jot aw yiw wala mu jot li nga xam ne moom lay mébéta ko sàkku lu dul ne ab coono daf koo jiitu kon nit ki lépp loo xam ne moom lay sàkku rek wala lépp loo xam ne moom lay dagaan ci suñ borom euh, na ko sabab lu jiitu te sabab lu ja dara euh, jiitu ca sonn ngir mën a jot ca la nga xam ne moom ngay sàkku bu dee alal ngay wut sonnal ngir nga mën caa jot bu dee ab xam-xam ngay wut sonnal ngir ngir nga mën caa jot bu dee leneen looy wut ci àdduna tamit son sonnal ngir nga mën caa jot waaye bul yor say loxo rek euh, gënal loxoy kese gënal am nooflaay ba bañ a nungoo liggéey ba pare te tedda nga joo gis ci àdduna bëgg ko am loolu euh, nit ki saa bu ko defee mën na koo jural ay jikko yu bon ndax man naa euh, day diir di defi loo xam ne suñu borom bi subhaanahu wa taala àndu ca kon nit ki su bëggee tedd nga la nga xam ne moo koy may tedd mooy sabablu te sabablu ca dara jiitu ca liggéey waaye nu ngoo ngir jot ca tedd nga joojee nga xam ne moom lay yootu kon ñi ngi tuub bu baax tey jéggulu di wax ne foofu la wàcc suñu kàddu di wax ne lu ci jub ci sunu borom bi subhaanahu wa taala la lu ci dëng ci jaam bu xeebu bii doon taxawe jataay bi la di wax ne in uridu illa al islaaha masataatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala